ko maa ngi nuyu sénégalais yëpp di nuyu auditeurs yu rajo Baol Média di la nuyu Paco di nuyu. maa ngi lay fay bu baax ngi lay fay bu baax a baax a baax si 88 point 5 tey jii dama dalal ndaanaan mu war a waxtaan ak ñun si lu am solo waay ayca. ok di la nuyu Paco di nuyu sénégalais yëpp di nuyu auditeurs rajo bi yëpp itam di wax ne Baol Média mooy suñu rajo. Eh, di la ñaanal yow tam aussi Paco yàlla nga nekk capitaine. amiin waay amiin. Eh, ndeysaan ah, loolu de am na solo moom yàlla naa nekk capitaine. Eh, tey ji nag maanaam tey dañuy waxtaanee lu am solo ci tolluwaayu réew mi. Ah, dañ la si laaj sa xalaat ndaxte dafa xew politique bi ak li nga xamante ni mooy jafe-jafe réew mi tey ji tey Diadia Mbaye avant tout damay dugg yow si li nga xamante ni mooy jafe-jafe réew mi tey jii ba la ñu ci wax sa xalaat réew mi réew mi rumeur bi fu mu toll fu mu toll nii ah, maanaam njàng mi sooxe na hmm, ak ah, li nga xamante ni maanaam mooy wér-gu-yaram gi nit ñi war a faju mënuñu faju ah tolluwaay réew mi daal feebaru réew mi daal. yéeme na yéeme na hmm. yéeme wax nga dëgg. Hmm. situation yu Sénégal di traversé. vraiment metti na. Euh, Sénégalais yëpp yëg nañu ko. bon loolu tey moo tax euh, ñu taxaw man ak ku mel ni man ñu taxaw mhm. ànd ak coalition mhm. Abdourahmane 2024 mhm. pour ñu génn ci situation yi nga xamante ni Sénégal ñu koy traversé ñu génn ci senegal te foog naa ni euh, ak ni Sénégal di dund gëm naa ni ak Abdourahmane Diouf incha allah lépp dina baax incha allah ak Abdourahmane Diouf Abdourahmane Diouf kan mooy Abdourahmane Diouf ok Abdourahmane boo ma ko laajee loolu dinaa ci sawar tontu tontul mooy nit ku nga xamante ne nii critères yi suñu borom wax li joomaare may wax ni mooy nekk ci njiit yëpp suñu borom dajale ko dajal na ko ci moom. bon nit la ku xamante ni d'abord njiit dañu wax ni dafa war a am juróomi façon facette yu nekk ci moom. bon loolu juróom yëpp macha allah dajale na ko mooy nit la ku am yërmande d'abord. nit la koo xamante ni xam na aussi askanu Sénégal ci jafe jaf yi ñuy jànkoonteel. nit la koo xamante ne nii aussi am na xam-xam macha allah. tey it incha allah rabi sénégalais pur sang la du sénégal du franco sénégalais. du franco sénégalais. su ma waxee franco sénégalais nag mooy comme que sénégalais yii fi nekk ni nga xam ni. depuis sant ñoom ñoo jiite Sénégal. tas ko ci benn coin mu ni nag ay léegi foog ma ànd ak sénégalais yi. ñu waxtaan fexe ba génne Sénégal ci coin bi muy tourné bu tour de mais Sénégal nekk Sénégal bu bees. ñu dund incha allah développement bu wér. Abdourahmane Diouf jàpp nga ne mën na génne Sénégal ci cercle bi mu nekk. bon loolu lu leer nañ la amu ci lu may sikki sàkk ci xam-xamam ci yërmandeem ci sénégalais yi mhm. ci tolluwaayam ak wàcc gi mu wàccee boppam mhm. ba nga xamante ne nii mi ngi foo ko fekk mi ngi ci biir terrain bi di waxtaan ak yi xam naka la sénégalais yi dund di dund xam jafe-jafe yi sénégalais yi di dund ba pare am xam-xam bu mu génnee Sénégal ci situation yi mu nekk mhm. am xam-xam bu mu génnee situation bi nga xamante ni foofu la réewu Sénégal bi nekk. Mm-hmm. Abdourahmane Diouf fan mooy cosaanam origine comme nga ne du franco-sénégalais. kay du franco sénégale su ma ko waxee loolu mooy dafa am ay sénégalais yoo xamante ne nii. gëmatuñu réalité Sénégal gëmuñu culture sénégalais ah, peut-être nag ay dara yu ñu la ñu rek comme man comme yow comme d'autres keneen keneen keneen mais seeni euh, dundin ak li ñu comporté woo mhm. du comportement wu sénégalais sénégalais ku ko xam da nga koy xam ci la biir sénégale ku ko xam da nga koy xam ci solidarité sénégalais aussi ku ko xam da nga koy xam ci euh, am un peu yërmande mhm. mais actuellement nii réew mi di demee ak situation bi réew mi toll mhm. vraiment pap euh, pako ku xam Sénégal xam ñi ko diriger vraiment du ñu mérité wu ñu diriger Sénégal loolu nag moo tax ma lay présenté ni la Abdourahmane est un quelqu'un boo xamante ne nii sénégalais pur sant la sénégalais parce que xam na lan mooy Sénégal xam na àqu sénégalais aussi xam na surtout àqu doomu daara loolu tax na ma ni la euh, Abdourahmane vraiment Sénégal yëpp war nañu ko bokk xam xam kan mooy Abdourahmane ak euh, lan la war a porte ak yéeneem ci Sénégal loolu nag maa ngi ci ak samay moroom. ni soo ma ko mayee ma jàll waxaale. ak ñi nga xamante ni ñoom porté coalition. tey sa émission la dama ñëw pour ñu waxtaan waxtaane actualité réew mi tamit ah da si am solo mais tey sa émission la ndax dama la invité. dinaa la ko nangul. dinaa la wuyu ci li nga wax. loolu moo am solo. Euh, parce que tam euh, réew ku ko bëgg. bëgg ko diriger. il faut nga na ngay expliquer wu. wax li nga xalaat. mais di nga sañ a bàyyi beneen Sénégal itam aussi mu wax li mu xalaat. loolu mooy loolu wute xalaat mooy tax réew mun a dox. Euh, bon su may lay jox exemple ci lu mel noonu yow yaa ngi liggéey ci média man maa ngi liggéey ci beneen domaine te yaa ngi may opportunité ñu jàkkaarloo. ma mën a wax sama soxla. loolu mooy ute xalaat gi. kenn ku nekk si matière bi nga nekk. ci ngay mën a dimbali sa morom. bon loolu moo tax moom mu dajale doomi daara yi. ñi nga xamante ni ni mu koy waxee ñiy bindee càmmooñ jëmale di joor ak ñi ñi bindee di joor jëmale càmmooñ bon ñun ñëpp ci Sénégal lañ dëkk Sénégal ku ko xam-xam ni ñett ko sos bu ci jëkk mooy euh, aada beneen bi ci des mooy diine bon boo gisee ni état bi yi fi nekkoon depuis 60 ba léegi suñu bàyyi xel diine alors que moom mu ñëw nii pour ñu doxal réew fokk ñu fexe ba li sénégalais yi euh, bëgg jàng ñu jàngal leen ko li ñu bëgg dund ci seen dundin aussi ñu fekk si leen ci dund ak ñoom noonu mais du bane dañuy jël beneen culture beneen réew ñëw di leen ko imposer loolu mooy problème mu Sénégal actuellement moo tax moom nag ak Abdourahmane Diouf incha allahu rabbi 2024 su ñu jëlee Sénégal dinañu soppi Sénégal dinañu jël njàng Euh, alquran boole ko mu nekk ci école publique nationale bu Sénégal incha allah rabbi incha allah rabbi tey ji dama dalal benn daanaan muy Diadia Mbaye képp koo xam ne mën nga participer war nga bëgg a participer ci émission bi mën nga jaar ci ñaari porte yi may joxe muy 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 boo amee question yooyu laaj maanaam loo ko bëgg a laaj ak loo bëgg a leerlu yëpp mën nga jaar foofu 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 aca ni waaje figan ay kiila wala sa léegi tamit ba tey question la kii la wala kaa la ana kan moo tene sa morom jàpp nga ne Abdourahmane moo tene gaa yi fi nekk tanewul parce que bu tanante amee dafa gën. feebar jógewu fa. dafa gën. fi tane nekk daal feebar jógewu fa. feebar jógewu fa waaw moo tax moom dafa gën tananteetul dafay candidat bi gën ci Sénégal nekk candidat bi nga xamante ne nii moom mooy seul candidat bi nga xamante ne nii incha la trente. ca fële CIGES euh, dinañu fa euh, euh, célébrer suñu livre yu mu bind onze livres yu mu bind. Mm-hmm. pour que mu nekk programme boo xamante ni ci lañu ñu mm-hmm. naka lañu mën a doxalee Sénégal bu bees. Mm-hmm. Sénégal boo xamante ni. la trente lay doon incha allah Sénégal boo xamante ne nii dina nekk Sénégal bu. sénégalais yëpp. gis seen gis ci seen bopp. góor jigéen mag ndaw ñu nekk ci njàng mi hôpital yi paju gi mbay mi et tout ça programme bi pare na incha allah rabbi euh, le 30 dinañu ko euh, présente si fan sénégalais yëpp mi ngi di ñu ngi koy defee Dakar sujet incha allah rabbi. am na ay bis yu jógee fii dem foofu wala. si. dina am bis yu jóge fii délégation bu dem euh, suñu demee aussi dinañu présenté bu bëgg naa sax bu boobaa ma invité la comme ça nga mun a ñëw assister. taarkalla loolu dina ma neex trop. incha allah en tout cas moom mooy candidat bi nga xamante ni moom mooy seul candidat bi nga xamante ni bind nga ay livre ci livre yi mu bind yëpp. bu ci nekk programme la boo xamante ne nii. Mm-hmm. lii ci sàmm gi la lii ci géej gi lii ci mbay mi lii ci leneen ak leneen ak leneen. Mm-hmm. loolu nag ku ko ku maîtriser wul Sénégal mënu ko def. Mm-hmm. ku amul xam-xam bi aussi mënoo ko def. ku amul aussi oyof gi mënu la wàcc ci ci terrain bi. ba xam réalité yi carrément. lan la sénégalais pur et dur bëgg. loolu la def incha allah bi ànd ko ak équipe am bu am solo ñu leen di woowee ay jàmbaar. ñu liggéey ci liggéey bu rëy a rëy macha allah. ci man point 5 mën ngay jaar ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 tey ku mel ni man wala keneen ku may déglu xamul kan mooy Abdourahmane Diouf. Hmm, waaw Abdourahmane maanaam tey. waaw ñëwalu ci question boobu ba pare. ok Abdourahmane mooy sénégalais wax naa ko. dama mhm. koy waxaat. Mhm. mi ngi dëkk Tëngéej. waaw kay loolu laa bëggoon a ñëw kam tey bu mu ne origine wala boobu fi nga xamante mooy baasu Jaaja Mbaye. ok origine am Tëngéej la moom Abdourahmane Diouf porté coalition Abdourahmane 2024. am ay nit ñoom ci moom yaakaar óolu ko jiital ko. bon xam-xamam yërmandeem ak. yéeneem aussi ci Sénégal loolu la ko gaañu óoloo man ak keneen ak keneen ak keneen ak yeneen i parti coalition yi mu allié mhm. ñu jiital ko pour incha allah rabi 2024 situation yi Sénégal di dund mu génn ci xam nga ne Sénégal mérité wul mhm. li fi jaar ci ginnaaw mhm. ak li ñuy sintu di ko tiit Sénégal di ko tiit Sénégal réew jàmm lan moo fi jaar ci ginnaaw ak lu ñuy séntu di ci loo ñu si mën a mosal ku si mel ni man xamul lu ma weesu ndax xale laa li fi jaar ci ginnaaw kooku umpul Sénégalais yëpp mooy que ñaata Sénégalais ñoo fi fu ñàkk seen liggéey ñaata sénégalais lañu taal ñu perte complètement ñaata sénégal ñoo amatul confiance ñenn sénégalais yi jël mbëkk mi yenn sénégalais yi ñu tëj leen ci kaso yi yenn sénégalais yi alors que mujj découragé complètement ba toog léegi nag loolu il faut amaat beneen candidat bu ñëw joxaat sénégalais yi sens ñu retourné waat am confiance toogaat ci seen réew liggéey te xam ne réew mi lépp am na fi. Mhm. alors que Paco su ma lay expliqué dama lay wax ne la réew Sénégal bokk na ci réew Afrique yi nga xamante ne ni. Mhm. ñoo war a gën a naat ci Afrique. Mhm. parce que Sénégal li mu am ci terre. Sénégal li mu am ci ndox. Sénégal ba fii may wax ak yow. ñu ngi dëkk di continuer di bay ci fas ak machine. alors que réew wi adduna bi romb na foofu. te man sama dëkk loolu am na fa. ok loolu adduna bi romb na ko léegi nag ak suñu programme. <laughs> am nañu programme te liggéey nañ ci loo xamante ni incha allah rabi dinañu fexe ba taxawal genn kuréel goo xamante ni dina saytu mbayu Sénégal mi ba nga xamante ne ni sénégalais bu ci nekk dinañu la jox matériel agricole bu baax. jox la semence di la jox engrais jox la dund nga liggéey. régulièrement pour Sénégal mais la projet boobu jaaroon na fi de. non du bokk xam nga. procès politique moo fi daan jaar. léegi yéen seen projet bi daa doonul de déedéet li ñuy def mais ki ngeen topp politicien la. mais du politicien xam nga politicien mooy. Mhm. xaaj ci gauche doo droite. signaler gauche daal droite. ok ñun bokkuñu ci genre boobu ñun li ñu gëm. mooy programme la ñu am boo xam te ni incha allahu rabi 2024 bu ñu jotee Sénégal dañu koy génne ci kàmb gi teg ko ci kaw ñëpp gis ko incha allahu rabi ci loolu la ñu nekk ak programme yu wér ak xam-xam ànd ak moyens yoo xamante ni nii incha allahu rabi dinañu ko mun a développer doxal ko incha allah. ñu ngi koy ñaanal bu baax maanaam nag Diadia Mbaye wax def na morom jëf mais jëf du moromam di ni nga waxee nii. non jaakaar nee naa la ñun duñu ay politiciens. c'est-à-dire euh, waxu politicien mooy xaj gauche signalé gauche jàdd droite. yéen kon ay lan ngeen. ñun duñu ay politiciens ay sénégalais yu ñëw pour defar Sénégal lañu. xalu nga daju suuf ndax yéen pare ngeen pour defar Sénégal. incha allah ak pare ngeen pour mën a defar Sénégal. xam nga li lay jox exemple mooy yow peut-être xamuloo ma waaye boo laajee sénégalais yi ma xam. peut-être mhm. dana am ko dugg téléphone. Mhm. dina xam ne man borom métier laa damay liggéey. man xam naa ne borom métier nga. ok merci beaucoup kon gëm ma politique mais liggéey laa gëm. bon Abdourahmane juuf mi ma dirigé man nekk sama candidat ma wóolu ko. ci Sénégal loolu laa xam ci moom. liggéey laa xam ci moom liggéey la gëm moom lay ñaax ñëpp. ok bu fekkoon tey politiciens lañu fi ñuy dégg politiciens yi dinañu fa dégg. léegi ñuy dégg ci xàccante dóorante fi ngàññante saagante. est-ce que loolu gën na si réew mi. bon non loolu musiba la. musiba la te loolu mooy daw Sénégal loolu nag la ñu fi bëgg a génne indi Sénégal bu dal indi Sénégal bu xam-xam. indi Sénégal boo xam te ne nii dafay ànd ak liggéey respectante comme ni ko sunu maam Serigne Touba doon bindee. léegi yow yaa ngi dooru dugg ci politique wala dugg nga ci politique avant Abdourahmane Diouf. bon mos naa milité ci benn parti politique mais xam nga man gëmuma politique business loolu bi nga commencé ma gis ci politique business après là mujjee finalement. léegi ban parti mooy. politique business saxte di nga wax ne yow wax ne mos nga dugg ci politique mais politique business. si kon parti bi nga nekkoon doonoon business. nag parti Sénégal yëpp dañuy def def politique business masoor parti fi nekk yëpp li may ci gis ci ñoom mooy que dañuy def politique business parce que ku gëm ni. Mhm. da nga am conviction ci développer sa réew. Mhm. da nga am gëm-gëm ni sa réew kàmb gi mu nekk mën nga ko ci génne. Mhm. dangay ngay sa bëgg-bëggu bopp ak bëgg-bëggu askan wi yëpp. da ngay bàyyi say intérêt topp intérêt yu askan mais ñi ma gis si ñuy def politique lu ci bari koo ci jox. benn affaire ci suuf mu bàyyi candidat ba mu nekkoon dem ci beneen candidat loolu nag business la waaye du politique. léegi yow boo waxee loolu est kon jàpp ma ne yow mi gars yi am na lu la jox ci suuf ba tax nga bàyyi. fi nga nekkoon. non man kenn mënu ma jënd parce que aw ma njëg. léegi lu tax nga jàpp ne gars yooyu am nañu njëg. Ah, mais kenn ku nekk ak sa. sa sa sa prix xam nga sénégalais ñoom ñooy jaayante ñooy ñooy jaayante. mais Ablaye Wade Ablaye Wade dafa waxoon ne Sénégal yi kenn ku nekk am na prix am. <laughs> voilà loolu la fi bëgg a jëlee Paco. loolu lañu ñu bëgg incha allah rabi kàpp mu jóg ci Sénégal. sénégalais yi gëm ni. réew liggéey moo koy yóbbu. mais du ay wax. ay réew da ngay teg lu wér. ànd ak sénégalais yi. ñu joxante respect gëm ni liggéey mooy jëmale suñu réew kanam. mais ba tey da nga wax Abdourahmane Diouf mais xaw ma Abdourahmane Diouf ak ñeneen ñi ñu déglu dañ maa posé question boobu Abdourahmane Diouf parti bi naka lu tudd. parti Abdourahmane mi ngi tudd Awale. Awale. Awale Awale nag définition bu yaatu lañ ci mën a jëlee. kii nee na maa nekku ci ñàll bi. yàlla tere nee naa la ñun duñu ay politiciens ñun duñu ay politiciens. ah nee na daal Awale bi day bañ ngeen awale ko ci ñàll bi. xam nga déggoo ma de. politique. mooy def di jàdd ci ñal ak jaar ci aw xaal xaal mais ñun dañuy fas yéene awale réew mi ci njub ak dëgg. ak maandu ak liggéey. loolu moo tax ñu tuddee suñu parti awale senegal ci yoonu njub loolu mooy suñu objectif ñu taamu boobu. taarakaal macha allah macha bi ñu ko sosee ak léegi yàggul. bon màgg na màggaay boo xamante ne ni dayo bi mu am tey maa ngi la wax léegi nii dañuy def cérémonie suñu onzième livre onze yu ñu bind mais en même temps waxaaleel na leen ni la ma solution bokku ci waxaaleel ni la ñun suñu parrain dafa mat seen livre yi ma solution bokku ci solution baax na bu fekkee mën na am solution mais xam nga solution yële ah, jàll yooyu solution moom nekkul yooyu solution moom nekkul suñu livre yooyu solution moom mais yow jamono yooyu di solution yi di génn yow bokkoon nga ci solution yi déedéet mosuma bokk ci solution yoo xamante ne nii araka dañuy def nii bu subee ñu def nii man li ma gëm mooy su ma duggee xool la ñàkk dugg baaxul mhm. gaaw a génn aussi baaxul mais soo duggee nag sañ nga xam li lay dugal mhm. li nga dugg soo ci gisul li ngay wër sañ nga taxaw xool ba gis lu la nga dugg ci loolu xool naa ba xam ni Abdourahmane nee naa la candidat sénégalais la du candidat beneen naka la tuuti moo tax du daal maanaam du du franco-sénégalais. merci beaucoup du franco-sénégalais looloo tax. mais ñi fi nekk tamit kenn de nekku ci candidat franco-sénégalais léegi yow kan nga bëgg def euh, franco-sénégalais ci euh, militants yi nga gis ak opposants yi nga gis. bon xam nga bëgguma avancer bëgguma dugg ci lu lu jugé boo xamante ne nii peut-être. Euh, bëgguma gis boppam mais en tout cas li ma la mën a xamal daal mooy ñun ñu ay candidat franco sénégalais ay candidat sénégalais pur mais yow daa am fu ma la xàmmee woon de kii di mi wax na ma ko nee na yow am na fu mu xàmmee woon. fu ma foo ma xàmmee yow. ci Pastef moom loolu la wax. non mosuma xa bàyyi Pastef mosuma jóg Pastef parce que man sénégalais laa boo xam te ni bëgguma kuy teg sénégalais métti loolu sénégalais yëpp la bon bi ma gisee ni gouvernement bu Sénégal dañuy jàpp benn waay. di ko teg ay natt yoo xamante ne nii wër la leen li ñu koy song nii <laughs> du dara du ci dëgg dara jaaru ci yoon mais il faut may ànd ak moom ci métti bi nga xamante ne nii ñoom ñu lañ koy def solidarité loolu munul ñàkk waaye loolu nag tekkiwul ni <laughs> damay minute ci parti boobu déedéet euh, man Sénégal mais yow dañ ci amoon pas-pas ak ngëm-ngëm de non mais su fekk ku gis dëgg da koy wax ku gis jaani jaani comme quoi que yow bu ñu la tegoon <laughs> injustice damay wax ni kàpp mi li ngeen ko teg di yoon duma doonuma ñun nee naa la doonuñu politiciens yoo xam te ni dañuy fekkee dëgg di ci xëpp suuf ñun ay politiciens lañu fu ñu gis dëgg dañuy wax ni lii dëgg la lii du dëgg lii mooy yoon lii du yoon c'est ça loolu moo ma taxoon bu may expliqué ci Pastef gars yi dañuy yàgg ne damay militaire non mais léegi kon yow da nga jàpp ne justice bi ci réew mi doxulul dëgg bon en tout cas foog naa loolu laaj la boo xam te ni est-ce que duñ ko delloo ci micro yi parce que mmh. euh, micro trottoir ndax euh, foog naa boo wàccoon ci Sénégal yi laaj leen leen ndax Macky Sall day doxal dëgg wala doxalul dëgg téeméeri nit yoo wàññi foog naa ne juróom-ñaar fukki ak juróom dañ lay xam ne li Macky Sall ci injustice lay dox te pourtant moom Macky moo porté woon 2016 référendum kan ni Sénégal bokkoon nga nag ok sénégalais yëpp a woon wii parce que wii moo xam nga bu fekkoon si Sénégal gañ Macky Sall gañ kon tey loi yi duñ duñ fi dox. kon nag ku fàkk tëdd joxe baat ñu lay joxe sa paak ñu lay rendi waroo wéqu. waaw boobu dafa am lu taxoon. peut-être sénégalais yi de xamewuñu woon ni waa ji lii muy indi paaka la bu leen di rendi <laughs> su fekkoon xamoon nañ lii paaka la bu leen di rendi mais duñ ko daas di ko jox alors que dañuy yaakaar ne paaka la bu ñuy daas ba mu ñëw jox ko pour mu daggal leen ci buumu jàmm alors que mu feddaliwaat buum yi pour gën leen yeew loolu mooy problème bu sénégalais yi mm. moo tax ma la ci sama biir yi wax fële ñun duñu ay politiciens parce que politiciens noonu la boo yoo mën a xàmmee. comme naka. parce que euh, foog naa 60 la Sénégal moo mën boppam. Macky Sall mooy suñu quatrième président. booba ak léegi doyal ngeen ci jëndi ti set. amay ay xartum ak joxe xaalis. de jàpp nga ne gars yi doyoon neen wala euh, jàpp nga ne tamit gars ñu ngi maye ba léegi diñu loon diñu jënd ay ti set ak maye xaalis. de toute façon Kabor. olof wax dafa wax ni koo óoluwul ci sa jabar óolu ko ci sa xaalis waroo ko dénk sama réew. parce que réew dafa sensible soo koy dénk. koo sa jabar wóoloo ko wóoloo. ci sa alal doo ko dénk. waroo ko dénk sa réew. léegi yow kon lu fi nekk. erreur yooyu mooy suñu erreur loolu mooy erreur sénégalais yi. Mmh. erreur yi mooy souvent. Mmh. dañuy gis ku leen di jox xaalis. Mmh. ñu dem ànd ak moom wala sëriñ pisat wala lu ni mel bu ay kaar ñu daw topp ci. alors que bu voté ko su élection yi passé bu dellu ca booy booy ba. ñuy rëccu léegi nag loolu nag lañ fi bëgg a jëlee ñun moo tax fokk ñu nangoo wax ak sénégalais yi fokk ñu nangu leen expliquer. <laughs> lan mooy dëgg. que nit ki su fekkente ni daf la bëgg wax kaay jiital ma ma defaral la eh, bu ci neexal bàyyi ma neexal la amee rek eh, war na waxul dëgg. <laughs> kaay ma neexal la nga fal ma moom bu amee rek. am na am na na leneen lu xew. loolu moo tax ñun nag li gëm mooy wax senegal que ni fii kàmb gi senegal dugg. pour mu génn fi ñun senegal yi ñoo mun a ànd génne fi senegal ak nag teg leader de leadership boo xamante ne ni ay la yoon am na xam-xam bi am na yërmande ji te am na yéene aussi génne fi senegal loolu nag ci Abdourahmane laa ko gis. kot dong. toog rek nag. Abdourahmane Diouf. ko awale yi awale. mooy seul candidat bi nga xamante ni jàmm lay woote ci jàmm la xaj te Sénégal jàmm ko sos te incha allah rabi moom la Sénégal yëpp di ñaan. mos na dem élection wala c'est la première fois pour nga participer. bon mos na participer ci élection législative yi passé ba ñu am benn député bon comme ni ko yeneen parti yi mos a defee am na fi parti bi gën a siiw. <laughs> Euh, première jongante bi mu njëkk a participé pour le reste la jàlle tey gars yi wax nañ ni moom mooy le leader la gars yi wax euh, le leader nag wax la nag nii ci ci ci ci ci ci mbedd mi mais. léegi ban parti ban parti moo gën a siiw. waaw xam nga siw ak vote bokkul. Mhm. te foog naa sénégalais yi bu ñu ñuy voté dinañu voté ci candidat bi nga xamante ni am nañu yaakaar ci ni moo am programme juste. mais siiw mooy ku ñëpp xam. ok waaw xam-xam moom. léegi nag dama jàpp ne kon ku ñëpp a xam kooku lay gars yi voté. incha allah rabi ñëpp dinañu xam candidat yi gën. incha allah élection yi. jour ji may trois mois. no loolu dara deux jours mën na ci xam lépp parce que ku tëdd di nelaw yaa ngi nelaw mais ku yeewu xam ne yeewu nga. te bu soobee yàlla ñi ngi waxtaan ak nit pour ñu yeewu xam ni Sénégal sénégalais moo ko mën a defar. 1960 ba léegi nu ma déggee ngay wax mooy que ne Sénégal yaa ngi nelaw ba léegi. weesu nañu door weesu nañu loolu pour ñu yeewu léegi nag ñu ngi commencé mais gëm naa ne ñu ngi ne ngi nelaw parce que nelaw mënul passé. Mhm. alors que ngay def démb. Mhm. ñëpp di sikk. Mhm. tey ñu xëy di la parrainer loolu nelaw la. alors que ana. comprendre ma li nga bëgg def démb lu ñëpp di sikk. waaw tey nga xëy ñu lay parrainer. te ma loolu gis naa ko gis naa candidat yoo xam ne ñu parrainer ñuy parrainer. ñii fi nekk waa ñàkk jàmm soo leen waxee pourquoi ngeen di ne ñii dañ lay wax dañ maa jox waa ñàkk jàmm mooy ñan mooy coalition benn bokk yaakaar mooy coalition bi fi nekk nga xam ni ku jóg ni da ngay wuti parrain ñoom ñoo fi indi loi buy buy wuti ay parrain alors que xëy ni benn candidat mayu ñu la nga circuler pour laaj parrain acca loolu taarakal am na solo coalition ñàkk jàmm ci 88 en PS5 tey mu nekk émission sans limite di jëkk ba euh, invité ki nga xamante ni maanaam mooy Diadia bokk ci parti Awalé Abdourahmane Diouf nekk ki nga xamante ni mooy directeur parti boobu euh, képp koo xamante ni am nga question booy laaj wala looy leeral mën nga jaar ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 di ko seentu mu jaay beneen yoon buñ ko fogawul woon lii lu mu doon fi ñëpp sonn seen nguur gu bon a tax réew mi xii bon du li ngeen digee woon du li ngeen fi waxoon ay ay ay anas jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ah, tey ji dara ju yomb am na fi ku fi toog di leeral li nga xamante ni mooy partem dañuy incarné tamit ci ki nga xamante ni mooy leaderam di Abdourahmane Diouf Abdourahmane Diouf man ba léegi nii pour ma xam ko problème la mais nag dañaa teewal dañaa invité koo xamante ni moo ko teewal fii pour mu leeral kan mooy Abdourahmane Diouf Abdourahmane Diouf Abdourahmane Diouf mooy candidat bi gën ci candidat yi 2024 mm-hmm. porte coalition bu ñuy wax Abdourahmane 2024 incha allahu rabbi euh, Sénégal bëgg nañu 2024 ñu teg ko ci loxo yu wóor teg ko ci loxo yoo xamante ne ni bon Sénégal yëpp ñu gëm ni ñu ngi doog am président depuis indépendance ba léegi. depuis indépendance ñu indépendance ba léegi jàpp nañ ne 2024 buñ falee ki nga xamante mais est-ce que loolu dina yomb. pour man pour man depuis depuis depuis 60 Sénégal amagul président. mais xam nga Senghor président la boo xamante ne nii eh, dafa am benn réew bu ñu wax France moom moo ñu ko imposé. Abdou Diouf. bon Abdou Diouf ba tey Senghor moo ñu ko imposé. kon France mooy imposé Senghor Senghor imposé ñi. Abdou Diouf Abdou Diouf après Ablaye Wade. Abdoulaye Wade la Sénégal fal par alternance benn candidat benn président boobu laa mun a wax ni peut-être yi ñoo ko faloon mais yéen ci des yëpp c'est lool. waaw xam nga bi ñuy jëlee Ablaye Wade fii ci bopp réew mi boobu dafa am benn euh, problème bu am un mooy mooy Ablaye Wade dafa amoon un problème ak français yi bon léegi nag français yooyu ñoo bokk ànd ak ñii fi nekk nii ñu xeex ab Ablaye Wade ak yenn groupe ci seen comme seen classe gu mel ni ñu xeex ko ba Ablaye Wade jóge fii bon bi ñu ko falee mhm. keneen ki ci des mooy ki may ba a tudd waa ñàkk jàmm njiitu ñàkk ah. jàmm euh, alors dawuñu six mois mhm. yaa ngi dégg ñu naan mouvement réccoog yu ne ñu koy wax mhm. loolu nag euh, erreur la boo xamante ne ni bëgguma mhm. mu dalaat Sénégal loolu tey jii bokk na ci lu tax ñuy wax sénégalais yi nañu def attention bu baax ci kan la ñuy fal Sénégal ni ñu def attention bu baax ci kan li ñuy fal tey jii maanaam ki nga xamante mooy ab Diouf Abdoulaye Wade Sénégal yee ko falaloon boppam mais dafa am problème ak tubaab bi tubaab bi ñëw ànd ak Macky Sall su déggee waa ñàkk jàmm comme ko tuddee léegi ñu fal ki nga xamante ni maanaam mooy ah, Macky Sall mais léegi Abdoulaye Wade am na problème ak tubaab bi ñun Sénégal yi lan moo ci suñu yoon te ñun dañoo am problème ak tubaab bi waaw xam nga Sénégal ak France dafay dañu am coopération bu yàgg lu leen boole bu yàgg boobu ba léegi. allo allo. waaw ah, allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu. di la fay bu baax. Eh, man la Dan Bamba Kane. Bamba mhm, Kane. Dan Bamba. Ah, Dan Bamba Dan Bamba ça va ñu ngi lay ziare. Eh, ça va nuyu jaaji. Mhm. di rafetlu waxtaan bi bu baax a baax. kontaan nañ ci yow bu baax a baax. Eh, di dëggal aussi li ñuy candidat mhm. docteur Abdourahmane Diouf mhm. def naa ñu bëri xam nañ ko mhm. nit mu ngi bëgg yàgg tuuti ci langue politique bi mais aussi dafa nekk euh, comme ni mu ko waxee un de qualité cest dafa bokk ci doomu Sénégal yi nga xamante ni nii tey wax dëgg yàlla dafa jot nag ñu dénk leen réew mi pour ñu mën a delloo Sénégal li mu est-ce que loolu dina yomb non dans la vie dara yombul. Mhm, te muy dëgg. dans la vie dara yombul. Mhm. mais je pense que volonté bi mu am. Mhm. jaar-jaar bi mu am xam-xam bi mu am. ak euh, boo xoolee parcours am ay jaar-jaaram. liggéey bi liggéey Nations Unies. liggéey bi liggéey CEDEAO. liggéey ko un peu ci àdduna bi. tey mu wëlbatiku ne dafa bëgg service dëkkam. def naa ne dafay nekk euh, yoon tey sénégalais bu nekk gës xam mhm. kii mooy kan loolu moo ëpp importance waaw jaar jaaram bi sax euh, laaj nga ko léegi kan mooy Abdourahmane mhm. c'est très important mhm. li ñu gës bu xam kan mooy loolu am na solo am na seen naataango télé bu mag ci réew mi léegi nii rek ñoom ñoo ko invité woon naa waxtaan bi ko def am solo gis naa image bi euh, daan solo la ci def loolu nag moom fekk ñi ko xam ñëpp xamee bu yaatu xam-xam boo xamante ne nii yéene la koy waxee xam-xam boo xamante ne nii bëgg réewam euh, bu ñu amee yu mel noonu nag dañoo war a profité réew mi teg ko ci seen loxo ndax réew mi tey boot na ci koom ak euh, teraanga boo xamante ne nii mhm. daf ñu dese rek ay ndaw yu am jom fu laak fayda amuñu benn complexe tubaab pour yu mën na transformer réew mi liñ koy liñ koy yaakaare te muy dëkk Abdourahmane vraiment am solo lay doon mën nañ sax mhm. su ma ëpp ci wax ne gisuma benn ndoom si langue politique bi ci jamono bi mhm. donc euh, loolu laa ne woon naa ko ci sànni di remercier vraiment Diadji mhm. di la remercier yow aussi. di remercier auditeurs ak auditrices yi nga xam ne ñooy déglu rek. tamit dëgg. waaw di leen remercier bu baax a baax en tout cas. en tout cas daal il fait partie des meilleurs candidats. ci élection présidentielle yi ñu jëm. maanaam ñëpp war nañ ci bàyyi xel. sëñ bi. oui. jaar jaaram dafa am loo xamante ne da nga ko cee tudd ma xaw ko fàtte jaar jaaru Abdourahmane Diouf. Mhm. fan la jógee ba ñëw ni day dugg ci politique pour yor li nga xam la jàngee. Mhm. ñëw université Gaston Berger. bi fi mhm. jógee mu dem Suisse. wala mhm. jàngee di jàngale. ginnaaw bi nag si la duggee ci monde ouverte bi. adduna bu ubbeeku bi moom jàngale na nag ci réew yu bëri. ndax xam-xamam dafa demoon ba ba tey réew yu bëri ci adduna bi soxla ko. waaw mu doon dem nag. oh ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ci ñu naataango boobu am na leeral bu am solo bu mu def si Abdourahmane Diouf seen leader bi awale mhm. ah, ñu am yaakaar nag ni 2024 moo war a toog jubbanti Sénégal te ko ci yoon bi incha allah rabbi bon ah. kooku mooy sama euh, nattaango la Dan Bamba mhm. bon monsieur jàmbaar la ku baax la vraiment mhm. euh, ku laabiir ku am am xam-xam aussi bon ñu mel ni moom nag ñooñu ñoo bari Sénégal bari ci suñu parti bi. bon toujours sénégalais yi dañuy wane ni am nañu yaakaar. peut-être dañu gisul woon. waaw ñu jël ko ci ligne bi allo. waaw man la man la encore. Euh, dama del ci waat. Mhm. parce que li ñu doon wax dafa am solo. parce que tey ñu bëri. Mhm. jéemuñu xam. Mhm. ci taxaw yëkkati seen loko ne dañu bëgg a jiite réew. te la ca candidat yi bëri na nag. Mm-hmm. mu dajeeg élection boo xam ne bëri na coow. Mm-hmm. ñoo xamante ne nii seen tànneef ku bëgg a jiite seen réew dañ koy aj ci. Mm-hmm. néew doole buñ ko néewal doole. injustice yëpp. injustice loolu loolu lu baax la ndax ñun loolu la ñu xamee. Sénégal bëgguñu fi jaay doole. mais nag ñu jëlee yooyu yëpp. nañu xam ne jaay doole gi dafa am lu ko waral. mooy que ne dañoo dañoo am. jiitu réew bu melut ni mu war a mel. Mhm. jël justice di ko xeexee. justice ci kaw askan boo xamante ne nii. Mhm. même yéene lañ am ak moom. su ma jëlee exemple Ousmane Sonko. Mhm. yéene bi Macky Sall am. dafa réew mi. Ousmane moom la am. te pourquoi ñu jël injustice bi yëpp teg ci kawam. donc loolu pour ñu jeexal ko. Ah, je préfère ñu jël mais sëñ bi ah, sëñ bi. oui dogguma la après da nga gën a développé. mais tey da ngay gis borom kër gu takk ñaari soxna. te aaw bi yéene bu mu am ci borom këram moom la ñaareel bi am ci borom këram du terewul aaw bi day am pro am problème moom ñaareel bi. waaw loolu mooy ñu mënul te mooy mooy cest loolu dafa bokk ci projet wu Abdourahmane. Abdourahmane daf ne. Mhm. bu nekkee président li muy njëkk a dëkk mooy. Mhm. réconcilier Sénégalais yi. Mhm. gis nga exemple bi nga jox nii. Mhm. noonu nga mënee gis. génn kër googu dugg si beneen kër gi. awo ak ñaareel jigéen ñi. waaw. ñooy bokk benn lal bu ñuy xanaa. waaw daa waaw loolu tamit wax naa ko gis. waaw maanaam fii donc. léegi nag léegi nag ñun bu ñu demee bay tànn. dañuy jël exemple bu baax. di jël di gën. indi ko si suñu réew mooy réconcilier jafe-jafe yëpp ndax ñu mën a liggéey liggéey bi ñu bëgg a liggéey Sénégal transformé ko lépp mu mel ni yeneen réew yi am puissance ci àdduna mais sëñ bi njàng mi sooxe na non yooyu yëpp indi na ci ay feebar te faju am na fii wallaay wallaay yooyu yëpp indi na ci ay solution yoo xamante ne nii mhm. vraiment boo ko toppee tuuti rek di ko déglu rek di nga xam ne vraiment moom am na mérite ci ce Sénégal. donc euh, wax na la léegi aussi livre yu mu bind xam nga livre moom. day firndeel xam-xamu boroom. ndax toog sax lii di wax. mën nga ko déggee fenn mu ne mais livre yi nga bind taare ko loolu dafay firndeel. xam-xam nit ki am. Mhm. fukki livre ak benn la war a présenter samedi. Mhm. Dakar. dinañ ko gën a yaatal xam naa ñun aussi dinañ def ay déplacement dem ci plateau yi. dina leeral ak ñun dana si am jëm dana si am solo mais livre maa koy sànni léegi ma solution bokku si. bon xam nga solution moom. Hmm. baatu tubaab la. Hmm. solution la. dafa am solution bi fi jaaroon de. ndax ba xaaral. am solution baatu tubaab la. Mhm. mais jëf jëf ji solutionné. Mhm. problème yi. def mhm. naa loolu moo gën a am solo. loolu gën a am solo waaw waaw. Abdourahmane Sénégal d'abord la wax. dog tënk yi. maanaam ak lu ñu mën di xalaat. nañ jël Sénégal teg ko suñu kanam. te def loolu solo la. Euh, bu ko ci Sénégal yi gungee rek incha allah dinañ ci am ndam loo xamante ne ni Sénégal yëpp ñoo koy bokk. Mhm. te jafe-jafe yi ñu ci am yëpp dina jeex. Mhm. xale yi li ñu nekk ci géej gi di mbëkk ndax jaaxle. Mhm. yëpp dina jeex incha allah. donc ñoo invité ñëpp ñu continuer di parrainer. Abdourahmane te élection yi ñu mën ko voter. di remercier aussi waa Touba parce que man bokk naa ci nekkoon ci parrainage bi. mais li ma woo ci ay nit pour parrainer Abdourahmane kooku dem na la mu ngi leeral lu am solo di Abdourahmane Diouf ah, borom parti awale waaw ah, tey jii ñu dalal seen i ndaanaan dalal tamit ki nga xamante mooy Diadia mbay ma xam ko ci tey ak li nga xamante ni mooy yaru am tamit Pastef ak ngëm-ngëm kon nag ah, bu jàppale benn leader boo xamante ni xaw ma ko damay am yaakaar parce que waaye gars yi wax neen ko wax ma sa waaye ma wax la ki nga doon waaw parce que Diadia Mbaye mi xam mi ma ko ci caaxaan ok jaajëf sa waa ji maa ngi kontaan trop ci sama waajo ju woote. mu ngi daan Bamba jàmbaar la. jàmbaar la joo xamante ni vraiment euh, du du du du dañ mukk di sonn ci lu jëmale avale kanam mais li muy def noonu la bu mu delloo deltu bu mu yolomal mukk na tey bu baax parce que euh, réew fokk ñu ñun ñëpp ñu bokk yor lu baax taxaw taxawaay boo xamante ne ni dinañu mën a bokk ànd pour defaral suñu bopp suñu réew kenn du jóge ci àll ba ñëw duñu defaral suñu réew ok ñun rek ñun ñoo mën a ñëw fii ci senegal euh, bokk àndandoo ñun sénégalais joxante loxo joxante loxo pour que suñu réew ñu defaral ko suñu bopp mais su fekkente ne ni dañuy bëgg a dépendre ci ay yeneeni réew. <laughs> comme ni ko ñi fi nekk di di defee. askan yi seen mbir yëpp ci bor lañ ko bëgg a laal loolu aussi dafay indi problème kon sénégalais yi rek ñoo mën a ànd ñu tabaxaat suñu réew léegi yow lan nga jàpp ne Sénégal yi moom lañ mën a def ba duñ dépendre si bërëm réew parce que ñun liñ manqué la daa bëri dara lenn rek la manqué mooy mooy njiit bu baax loolu la Sénégal manqué <laughs> mais manqué wul dara loolu mooy suñu problème loolu nag la ñuy jéem a fexe ba incha allah rabi ñu indi 2024 Abdourahmane pour que Sénégal am Sénégal bu bees bu judduwaat Sénégalais yëpp bokk gis seen bopp ci mbir ci projet bi Sénégal yëpp xam aussi que ni ndekete réew dañ koy teg ci loxo yu wóor pour mun ko doxal loolu mooy suñu mébét ñun ñi nga xamante ni ñooy les membres awale yëpp bokk ci coalition Abdourahmane 2024 bon di ci woo Sénégal yëpp quoi góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku ñu dégg xam ni li ñuy wax yéene la ñuy waxee ak bëgg Sénégal yi yërëm ji yërmande ju ñu am ci Sénégal surtout jigéen ñi sama waa ji su fekkee tey dem nga ci marché bi mhm. vraiment da ngay gis ni coono bi suñu soxna yi di sonn ak suñuy bàññeek suñuy ay mhm. ci marché boo xamante ni nii lii doyut lii doyut lii doyut loolu laal kenn du ko laa lépp cher mais xalangu dajul suuf. Euh, no du loolu du problème mu xalangu xam nga loolu dafa am euh, sama waa yi démb yàggul. Mhm. dafa am waa ñàkk jàmm ki démb rek lañ fi doon watee seen slogan lépp mi ngi woon ci fexe ba dépense yi wàññeeku. seen problème yëpp loolu la woon. mais mébétu jàmm bi la tey dépense yi. dafa bëgg bëggam la yàlla mooy dogal. na loolu du yàlla yàlla moom wàcc na pare na mooy bi mu ñu joxee suñuy xel. Mhm. jox kàttan gu ñu mën jëfandikoo ak xam-xam bu ñuy doxee alors que li ci des nag ñun ñooy mobiliser wu xool fi ñu bëgg a dem ñu yóbbu fa suñu bopp mais tey ji yow da ngay am sa programme suba mu fausité waaw da am noo bëggee jotewut du ko demee ba tey li may wax jotewut ak te yow personnel kott dong nga waxuma la ak réew mi non xam nga réew Macky mhm. Sall dafa doon wax ni mhm. dépense wu état bu Ablaye Wade dafa seer loolu daan na ko wax. waaw jàppoon na kàddu yi politique la ok moo tax ma ne ñun duñu ay politiciens. lu lu ñu wax gëm nañu ko. bala ñu koy wax xalaat nañu ko. donc wóor ni c'est juste que lii ñuy wax. lu mun a nekk la. ñu bind ko ci président bind ko ci livre. présenté ko Sénégalais yi bu ko Sénégalais yi waree jox ko incha allah rabi ni mu ko waxee noonu la ko jëfandikoo. bi soobee Serigne Touba. loolu lu ma xam la te lu ma mën a waat la man parce que nag. du ma quelqu'un boo xamante ne nii damay wax rek ci sama bànneexu bakkan man li ma la wax nii dafay fekk am naa ci firnde ju wér ci ni confiance dama koy am ci waa ji ko ji ko incarné alors que xam-xam bu wér ki damay xam ni ki koy incarné am na ko te xam naa ne am na xam-xam bi am na expert am na yërmande ji aussi comme li ma waxoon bu njëkk parce que nit mënuloo ko jiiti te yërëmuloo ko mhm. alors que ñii fi nekk yërëmuñu suñuy yaay yi yërëmuñu suñuy yimpaañ yi yërëmuñu ñun encore yërëmuñu suñu doom yi bëtt ci mbëkk mi loolu ku yërëm réew njiit bu yërëm réewam yërëm population du ko def alors que boo xoolee yeneen euh, réew yu ci des dangay gis ni seen doomu réew bu génnee benn problème lu mu ndaw ndaw bu ko amee rek dangay gis ni réew bi yëpp day dañuy jóg taxaw mais alors ko tey yaa ngi dégg sénégalais yi ci nekk bitim réew. Mhm. bis bu yàlla sàkk ñu ngi jàmbat ci problème consulat ñii di wax lii ñii di wax lii ñii di wax lii euh, c'est parce que loolu dafay confirmer ni état bi moom intérêt rek moo ko tax a jóg mais tey da nga wax yeneen réew bu fekkee ne ñu ngi am seen doomu réew yi génn am problème seen doomu réew yi dañuy génn mais yow ci doomu réew yi nga bokk Abdourahmane li ci doomu réew mi la bokk. Mhm. te tamit yow da war a bokk ci ñuy mars. ci doomu réew yi génn am problème. waa xam nga dafa am. léegi lay toog di xaar état dafa am responsabilité yoo xamante ne nii. Mhm. état bi moo ko yor. Mhm. mais mhm. mars moom état bi amul respons am nga ci sa droit. xam nga am nga sa cër. est-ce que Sénégal maye nañu droit de marche. Sénégal dafa am marche yoo xamante ni état du ko maye. marche bi yee fitna état du ko maye. amul benn marche booy xeexal xeexal sa doomu réew. mu ngi am problème ci beneen réew. capot Sénégal marche yi ñu fi capot Sénégal ñu fi organisé yëpp. état bi na ko encadré amul benn problème muy marche politique muy marche bu mu a doon. bu ko gouvernement bi na nga ko euh, autorisé ñu encadré ko du am benn problème mais marche yi fi am problème yëpp état bi ñoom ñooy jóge ci suuf jóge fa la indi na ci kaw population bi tiire ci seen i kaw ay grade la ko la ko san alors que xëpp leen ay ndox mu tàng dégg nga maam indi fi ay problème bu fekkee exemple bi may joxee fii ma dëkk Mbàkke parce que nit buy wax day wax ci ci ci fi mu localité bi mu nekkee <laughs> marche bi <laughs> nga xam ni àdduna bépp gis nañu ko. boobu mars mais police ñoom ñoo indi problème bi. ñoo fi créer violence. ñoom ñoo dóor grenade ci kaw nit ñi ñoom ñoo topp booy di xeex ñoom leen di carte di sànni. alors ko loolu boo ko defee gone gu ndaw goo xam te ni pourtant mën ngaa wax ak moom rek. sérieusement mu sérieux mais da ngay gis ni si biir mars bi sax am na benn policier. boo xam te ni def doon waxtaan ak booy pour jàmmuñ daal. mais police boobu dañ ko rajee. alors léegi loolu lan la. lan lan lan lan mën a tudd ci fii ci ci Sénégal kenn xamul loolu muy loolu nan la tudd xamuloo interdire marché la xamuloo qu'est-ce que ça passe dama yaakaar ne état bi dafay soxla souvent nag. Mhm. di créer ay problème di wut ñu ko ko la ba mu profité ci. Mhm. Sénégal moo toll foofu nag. dafa toll état bii ma gis nii. Mhm. moo tax may la tiit naa ci ëllëgu Sénégal bi di ñëw. surtout élection yi di ñëw. que camp bii. di ñu koy wooyee ñàkk jàmm. ak coalition coalition bu. Ousmane Sonko bi gëm naa ni su ci yàlla wisul ndox mu sedd mën naa am problème léegi nag loolu moo tax il faut ñu waxtaan ak sénégalais yi que ba ëllëgee ñu xam bu baax ni réew mi jàmm ko sos jàmm ko jik Sénégal jàmm ko jik fitna xaju fi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi koo ci gis boo toppee maama mokkee ci des ñoo bokk lépp alors que fii amul séparation mënu fee am affaire ethnie mënu fee am li fi mun a am mooy. ni ñu sosee senegal teggee ku réew mi ba man ñii di wax ak yow tey sama jabar pël la. alors que keneen. am na jabaram soose la. loolu mu continuer ci dynamique boobu te bu ñu indi ci yeneen problème ak yeneen fitna. ok loolu am na solo si 88 point 5 wan nga jaar si ñaari porte yëpp bu la neexee nga boo amee looy leeral nga ñëw leeral boo amee question booy laaj tamit nga ñëw laaj ko ci 88. 628 19 05 wala 88 628 81 08 88 628 19 05 wala 88 628 81 ah 08 léegi nag euh, jaaja hmm. waa ñàkk jàmm waaw anam ñan ñooy waa am jàmm nag bon mën laa wax ni man ñun ñooy ñun waa ñun ñooy waa am jàmm parce que ñun ñooy woote jàmm ñun ñoo fi seul candidat booy gis ñu invité suñu président. ci plateau. muy wax ci dalu Sénégal ak dalal sénégalais yi moom rek nga dégg mooy candidat seul bu ci wax. mais Pastef mi seen président bii loolu la ñëwee. non ba léegi kooku dañu ko attaqué di ko tooñ waxoon naa ko ci départ bi ni man du ma seetaan. ku mhm. ñuy teg injustice. loolu li nekk ci man moo nekk ci sénégalais yépp Euh, du ma lay expliqué dama lay wax ne mën naa la wax ni la pos pos kenn du ko attaqué. mooy nag mooy nit ki li mu gëm. <laughs> dee su ko attaqué te gouvernement bii ma gis. <laughs> dafa mel ni dañuy attaqué ngëm-ngëmu sénégalais yi. <laughs> parce que nag sénégalais yi dañu dund soixante. ba jusqu'à nos jours. ci benn système boo xamante ne nii ay la yoon sénégalais yëpp ñoo bëgg nag soppi cin nag moom ni ko wolof di waxee. cin bokkut safin bon bu fekkee sénégalais nag dañu bëgg a soppi cin nga ne alamik cin li kenn du ko te loolu moo commencé di am ci ci ci diggante ñii ni wax ni ay anti système lañu ak euh, ak ak ñi ne ci système bi waaw. <laughs> loolay problème bi rek. ci 98.5 rek ah. euh, waa Awalé tey jii ñoo fi toog ñoo fi toog waa awale muy parti Abdourahmane Diouf euh, Diadji mbay nekk fii ki ko représenté ci plateau bi voilà. léegi nag ñu ngi ci une heure mi minutes euh, xam naa ne jaaji mbay du yàgg dara euh, dinga nga def li nga xamante ni mooy sa tàggatoo ndax li ngay leeral ni tamit am na solo euh, presque dëgg la bay ci sa weewu tànk bay ci sa weewu tànk léegi nag li mu la bëgg laaj. Hmm. tey jii réew mi dafa tolli ci kaaw. Hmm. ñu jëm ci élection. Hmm. ñii naan dana am ñii ne naan du am. ba léegi tamit am na ku ma laaj na ma moom benn mbër kot la xam ne. mën na ko garanti dina dem élection muy Amadou Ba. ok dafa mel ni euh, da nga fekk si sa laaj bi dafa wàcc si ci sénégalais yu bari lu ñuy wax mooy est-ce que si Sénégal élection dina am bon bu fekkee ci règle démocratique la ñu tege élection dafa war a am. Mm-hmm. waaye dafa mel ni euh, comme ni nga ko waxee candidat boobu nga wax ni moom mooy candidat bi bi nga jàpp ni moom. Mm-hmm. Euh, moo war a bokk ci élection yi. candidat boobu su ma lay jox exemple ci làmb dafay mel ni dafa am ay mbër yu taxaw war a bëre mais am benn waay bu yor am mbërëm niw te dafa bëgg mu nekk roi des arènes te amul kele c'est-à-dire mi daal wax dëgg yàlla bu bàkkut supporter yi duñ tàcc ah, mais man ma jaaxal kele tamit du daan mbër teem ko dénk fañ fañ fañ fañ parce que nag nag moom moo fi amoon ba mu bàkk lan la koy dénk fañi fañ fañ jim yoroon ah mais nag ko jox question moom dama yaakaar ni moom amul bàkk parce que boo xamante ni kenn gisu ko ci terrain bi wàccut xamuñu ba lu mu mën a lu mu bëgg a dugg. mais daa mel man ni ma ko gisee temps yi muy doxee. daa mel ni jàpp na confiance. non mais kooku zéro confiance lay taxawee moom kay damaa yaakaar ne. Ah. candidat bi amul caaj amul caas sasu léegi nag. su fekkee dafa amul bàq. mais nañ ko jox fañ fañ fañ mu téye. mu téye ko ah waaw. supporters yi mën a tàcc. ah waaw ñu xam ni bokk xañ na kii moom mais ba léegi nii man daf ma wóoragut sax ni est-ce que moom mooy candidat. est-ce que moom mooy candidat loolu nag question bu buñ war a laaj auditeurs et auditrices yi est-ce que moom moo doon candidat waaw candidat boobu amul caaj amul caxa sas kon sëñ bi mooy candidat mooy mbërëm ah waaw mais moom bu dee moom mooy mbërëm na ko baax ci biir ay malo moom ñu dugg bàkku mais mënu ko gunge tamit accompagner ko d'accord kenn waxul bu mu ko gunge mais dañ waaw ki nga bëgg mu bëri <laughs> da koy bàyyi mook ay naataangoom ñu bàkku mais mbëri si arène bi gisoo si gars yi di yor seen cumbukaay ba dara ñaar minute yi ok boo ñàkk yor cumbukaay bàkkut fële lay toog soo demee soxlaa biteel mu jox la mais toujours yow mi yor cumbukaay li yaa yoree affaire bi yaa jiitu ci kanam yow yaay bàkku bàkk bi mais adversaire ki war a jàkkaarlu koy adversaire moom kenn gisu mais mais lamb lépp tegtal la tegtal tegtal tegtal la ah tegtal la <laughs> non dama yaakaar ni ah, dama yaakaar ne gars yi dañ dama yaakaar ne gars yi dañ samp mbër ba pare parewuñ te pare waaw moom moo toog moom moo toog càmbar xool xulli science ne xool naa boo xool mais moo ci tene kon kay kooku pare na. su fekkee pare na ci ci ci yoon. waaw mu wóolu aussi ki mu yoral. que ni am na confiance comme ni mu ko waxee woon ni dinaa leen présenter candidat bu bu set loxoom set candidat bu am confiance. ci bu sénégalais am ci moom confiance. mais loxoom set na. ok def ni. <laughs> moom dafa waxoon ni dinaa leen présenter. candidat bu amul xiili xaala candidat bu jub candidat boo xamante ne ni moo gën ci candidat yi indi na candidat bi alors am na yeneen i mbër yoo xamante nii dañoo bëgg bëgg dëkk candidat bi mais na bàyyi ñëpp ñu bëre hmm. mais nag mbër yi ku mën sa mbër yi am na mbër yoo xamante ni buñ buñ dëkkee yeneen mbër yi dañuy bañ de gis nga ko ci làmb parce que parce que mbër moo leen bokkuñ catégorie déet mais déet bokkuñ catégorie fii xam nga mais Modou Lo fu mu toll nii boo ko bëggoon a jox ki nga xamante ni mooy Zoss du ko jël. actuellement combat royal ci la ñu nekk. ku ñime sañ ngaa sa samp sa ndënd ni man bokk ci combat bi. mais ki xamante ni moo toog. ñi fi bëgg a bokk ci fi bëgg a bokk ci combat bi nag nañu leen bàyyi. mais jaajëf ñoom ñoo óolu seen bopp. jaaja mbay ñu bëgg a ñoom mun nañoo bëri. mais nañ leen bàyyi ñu bëri ñu bëgg a bokk ci combat bi yëpp. dañuy waxtaan rek ndax mën nañuy yor lamb ji mën nañuy doxal lamb ji. ku mënul yor làmb foog naa doo ñëw taxaw amuloo confiance ci ni mën ngaa daan. doo ñëw di samp sa ndënd da ngay bëre. alors léegi. ñoom wóolu nañu seen mbër. nañ ko bàyyi ay millions leen te bàyyi yeneen ñi ci des. ñoom it seen i mbër yeneen mbër yi bëgg a bëre. Mhm. ñu bokk bëri ku mën sa morom. Mhm. daan Sénégalais yi ñooy àtte. Sénégalais yi ñooy àtte. bu boobaa. bu Sénégalais yi àtte. fu Sénégalais yi jëm ñu xam ni kooku moo gañe alors que waaye nag tey. mais écrit yëpp. kii du bëri kii du sa kii fi sa génn yi nii lañ monnaie bii lañ fi sa génn système bii la jaar nii lañ koy doxalee yooyu vraiment man ma gëm ni làmb ji. seen day organiser la war rek CNG day organiser làmb ji président CNG day organiser làmb ji. ah ndax écrit mbër yëpp xajuñu stade ba. waaw waaye mu ko dee organiser tam mu organiser ko ci organiser wu yiw. waaw léegi moom nag jàpp na nu mu koy organiser noonu la. non xam nga. waxuñu ni du noonu wala nee la wala nee la mais damay alerte rek kan yi pour ñu dem ci élection normal foog ñu yamale candidat yi teg leen ci yoon ku ñëw yoon jàlle la la ñu bàyyi la nga jàll ok ki nekk ci arbitre bi muy Macky Sall ginnaaw moom nee na bokkul ut na mbërëm mais na na ko confier nag da jox mbër mi confiance bàyyi ku mu ñëw bàkku ci làmb ji su fekkee amul kele amul caaj amul caasas mu jox ko fañing fañ fañ. boobu moom moo ko moom. beneen waaye na ko able na ko abal waa ji. mu abal ko ko ah. ndax moom la yónni. Ah. léegi nag dafa nekk ñaari ndaw yi ñuy yónni tamit. waaw muy kan ak muy waa Pastef ak waa Macky Sall. kii yónni na Amadou Ba kii yónni na seen booy boobu. waaw Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye. ok sénégalais la comme ñëpp mhm. bëgg-bëgg la am mhm. sañ na bokk ci élection mhm. bu fekkente nii euh, droit am may na ko mu dem ci élection man éene naa ko moom mu bokk ci élection yi parce que comme ñun ñime nañu suñu mbër ñime na ragaluñu jàkkaarloog benn bët képp koo xam jàpp nañu ne sénégalais nga te yoon mën na laa may nga jàll ci yi ngir yàlla nañu la bàyyi nga bokk ci yi parce que loolu mooy tax ñu mën a xam kan la sénégalais yi bëgg léegi da nga dugg ci droit am ndax may na ko waaw xam nga dafa mel ni galgali bi Macky Sall yi mhm. dafay utiliser li ko waxuma ko nag. Mm-hmm. nee na gaa yi ko wax gaa yi ñooy wax ni. jaayeen Macky Sall dafay <laughs> non damay bañ ko yóbbu rek xam nga gaa yi ñoom <laughs> ñaareel léeg dugg foofu dañ la la war a. war a dugg fañ fañ. waaw léeg-léeg foofu dañ war a war a dugg waaye en tout cas façon dégg naa ci. ci nag gaa wax ni. Mm-hmm. Euh, constitution bu xuma loi yu Sénégal yi nu ko Macky Sall. Euh, tëggee neexee nu ko neexee rek. ah noonu la demee ci téerum ku per ko ci mbubb xam nga loolu la gaa yi wax. mooy safar daal day dawal waaw. daal gars yi noonu moom moom wax dëgg yàlla ab atlétéram la yor rek bon fu ko fu ko neex mu jaarale fi constitution bi dagg la fa mbubbam hmm. bon loolu nag la ñuy ñaan moom na deltu gannaaw te xam aussi ni moom sénégalais la comme sénégalais yëpp dañu ko óolu woon jox ko jële fi nit ki ñu fi jële mu ngi tuddoon Ablaye Wade nekk papa ci moom defal ko formation defal ko lépp wax dëgg yàlla ba sénégalais yëpp xam ko sénégalais am ci moom yaakaar mu wax ak sénégalais yi yi dégg ko jox ko sens joxaat ko sens alors tey foog naa ni li ñu séntu ci moom mooy mu arbitré élection yi normal ku gagné gouverner moom mu dëkk Sénégal Sénégal loolu la xam Sénégal xamul tegante fitna xamuñu indi coow xamuñu xeex xamuñu xuloo vraiment séntuwuñ ko su ci moom parce que moom ne ku xool kanamam. vraiment jàmm rek nga ciy gis kon nag moom suma déggee wala. ku ma dégg rek. Mhm. maa ngi ñaan yàlla xool kanamu Macky Sall. moom na xam ni. jàmm rek nga fay gis jàmm rek la Sénégal xam mais léegi yow si biir wax da nga wax ne waa ñàkk jàmm te waa ñàkk jàmm ku ne xam ne ne. Macky moom su ma waxee su ma waxee ñàkk jàmm damay wax ne peut-être mm, loolu wolof léebu na ni buur aayut. Mhm. dage ñoo aay loolu wolof a ko wax. Mhm. te ñaari waxi wolof. du wax euh, mën naa guddee mais du fanaan. alors que ñi am intérêt ci gouvernement bu Macky des si eral ko ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm ñooñu ba léegi ñu ngi wéy di façon pexe ba nag ñu ngi koy teg di manipuler seen mbir mi pour que bu kii bokk na kee bokk bu kii bokk ne bokk mais ku xam réalité yi nga xamante ne nii moo nekk war a nekk ci Macky Sall waxuma ne moo nekk ci Macky Sall mais moo war a nekk ci moom en tant que njiit normalement bu mu defee ñaari mandaam te xaw ni man bokkatuma ci élection yi war na mën a organiser élection yi transparence Sénégalais yëpp bokk ku bëgg bokk bokk ku am ndam ñu xam ni kooku moo am ndam ok ku am ndam ci biir élection yi ñu xam ni yow yaa am ndam ci élection yi. léegi nag lu nuyoo dina tàggoo. mu hmm. lay bàyyi nga tàggoo li nga xamante ni maanaam mooy si mission bi. Hmm. vraiment li nga fi wax am na solo am na njëriñ te tamit euh, xamal nga ñi kan mooy Abdourahmane Diouf. Hmm. waaw léegi nag looy tàggatoo suñu mbokk mi. ok maa ngi sant sénégalais yëpp di sant auditeurs yi rajo Bawal Média nga xam ni mooy rajo leader di la sant yow. Euh, sa waa ji comment ça s'appelle tur bi. Kabo la Didier Kabo ngi waaw euh, di la ñaanal yàlla defal la jàmm. jox la wér def la aussi nga nekk. Euh, comment ça s'appelle général. Mhm. jóge sax ci capitaine dem am jël gratu général. loolu dina ma parce ñaanal ngeen jël réew mi. Mhm. taarikal la macha ko def te yaakaar nañu ko. waaye di jaajëfal suñu auditeur boobu noonu dugg. ok merci beaucoup waay lu mu a baax. Ah, Dan Bamba ah, Dan bu baax a baax di la ñaanal ah, li nga xamante ni moom nga bëgg rek sa xol sa leader bi a métti métti loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def jaaja mbay maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci 88 point 5. ana suñu koom-koom ku ci manti falu rek soppaliku du li tax mu falu ku ci manti bàkku rek nga daal nangu foog ni waaje fi gën ay kii la wala ana piitaane sa morom kun ci wóolu ba di ko séntu. loolay problème bi kun ci wóolu ba di ko oh. mu daal di jël beneen yoon loolu mbiri pël politicien la.